laaj bi rek. waaw dama ni Bamba Fall ki kàddoom mi nga xam ne moom nga jeexalee te moom nga daal di yëkkati gis nañu li nga xamante ni moom mu ngi xew noonu ci sa ginnaaw mu jëm ci fitna ju nga xamante ni am na fa te moom en tant que maire la commune de Médina woote na jàmm ci wàllu woowu soññ ndaw ñi tamit ñu bañ a lu def lu jëm ci wàllu yàq ak yeneen ak yeneen ndax jàpp na ni doomi Médina ñoom ñoo fa nekk daan seen doole te ñoom it lu jëm ci wàllu impôt wala taxe ci mairie ba ña ngay am loo xamante ni ña ngi ko cay wàccoo di ko ca fay ñu bëgg bëggoon rek ci kàddu yooyu noonu lan nga ñu ca mën a dégtal ak li nga xamante ni mi ngi xew-xew di ci sa ginnaaw ba tey jàmmaarloo gi. voilà Moussa Sène donc euh, comme ni mu ko waxee léegi rek moom maire bu Médina Bamba Fall donc euh, dafa ñëw rek ànd ak ful bu takku donc ñëw wuy si woote bi nga xamante ni ñëw di waa aar euh, suñu démocratie bokk ci société civile bokk ci yenn parlementaire bokk ci yeneen tamit daanaka ñoom ñoo woote bile marche ni ki tey jii donc moom lu mu daanaka dëgg-dëgg ndaw yi mun nañu manifester wane seen naqar donc joytu li nga xamante ni moom la ñu wootee li di complot ñu daal di téye kii di Ousmane Sonko ni ki tey jii nag donc jàpp na ni loolu yoon la réew mi yëpp la war a naqar loolu ndax moom xamle na ni ginnaaw bi ñu ko jàppee tuumal ko ci yenn yi kii di président Ousmane Sonko donc nëbbatul woon dafa wane ni woon moom lay jàppale moom Bamba Fall donc mu war a fay naar bi xoromam donc ki mu ne ko olof Njaay di waxee moom tamit mu taxaw temm tey jii fas yéene jàmmarloo ak autorité yi fas yéene jàmmarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi ndax gis nañu lacrymogène yaa ngi wullee ñaay donc pour nga nooy sax jafe-jafe la donc mu àdduni yooyu xale nañu manifester waaye bu ñu wëy di yàq yenn yi nga xamante ni moom la koy gis donc voilà donc ñu ngi ànd ak ab benn ndaw rek donc bokk ci ñi nga xamante ni moom moo di manifester donc ñu ñaan ko ci ay kàddu yu teggine donc àdduna bi moo ñuy seetaan ñu dénk la kàddu nga waral ñu rek lan moo leen naqari jamono ji ba ngeen ñëw fekk ci aar suñu démocratie. bon voilà merci. à la France au Sénégal monsieur Macky Sall vous je vous le permets pas, chef. Non, non, non, je vous le, non, pas. Non, c'est bon, Excusez-moi. Non, non, c'est ma responsabilité qui est en jeu. C'est bon, je vous ai dit de prononcer des mots qui Non, non, je suis désolé. Non, je suis. non je suis désolé je suis je suis désolé voilà Moussa donc xam naa dam lay bàyyi ak antenne bi ñu daal di ñëwaat léegi léegi maa lay jëlaat ci kanam tuuti waaw maa ngi lay jëlaat ci kanam tuuti. dénkaane gi rek comme noonu nga ko waxee en toute responsabilité et def sa liggéey dafay tax tamit nga ñëw xam li nga xamante ni moom nga war a def ak fi ngay teg sa tànk ndax ñu nit ci loolu rek la ñu fas yéene soññ ñi nga xamante ni ñoo di askan wi di leen ko wax ndax dekk leen micro ngir ngeen wax dafa bokk ci conscientiser waaye tamit en toute responsabilité ngeen xam ni ci wàll wi nga xamante ni moo di média lu ci waay di jàllale wala lu ci waay di wax rek dafa am lu mu daal di laaj kon dénk leen micro ay ndaw wala ñeneen ngir nag ŋàññi rek am ci ndax man nga wax sa soxla saaga du am leneen du am mbokk yi kon ñu jël en ligne kenn ku nga xamante ni te fës